capuçon ak mennum laafa mu ngay gën a wàcce laafa ma <laughs> e way ndaw kii daal xam naa li mu yëg bëriwut moom daal li mu yëgal boppam bëriwut waaye ah, ah man rëg-rëg rëg-rëg rëg-rëg daa man de hmm. wax dafa ma nu ne waaye nag ah Bombardier moom mooy Bombardier Cheikh Omar Bombardier ngi noonu di waaj a wàcc si otoom Cheikh Ñang cey Cheikh Ñang maa ngi seen Ahmed Deme bu Caaroy mu ngay wàcc na de xool ko ndànk lay ñëw mook dem Deme Bombardier ngi ñëw Bombardier mbaxanaam dem tool ma Bombardier mbaxanaam dem tool ma mu nga ànd ak Aline Gueye Bombardier mbaxanaam dem tool ma Bombardier mbaxanaam dem tool ma Aline Gueye ngi ñew Bombardier ak mbaxanam dem tol mi Aline Gueye ngi ñaan Bombardier ak mbaxanam dem tol ma Bombardier ak mbaxanam dem tol ma mo ngi waxtaan mbaxanam mbaxanam dem tol de la sol dafa sañse de gisoo lim sañse xana ah mbaxanam dem mom kay da sañse wax nga deug de ciub bi Cheikh Omar mbaa xam nga ne cuub bi dem tol mi har har har Seexu Omar mbaxanaam dem tool la Bombardier sol ñu ngi koy defal muy raxasu ñu ngi koy defal muy raxasu Moussa Loss a ngi def muy raxasu Moussa Loss a def muy raxasu boo xoolee yegg heure biñ ko waxoon 17 heures lañ ko waxoon laa ilaha illallah 17 heures lañ ko waxoon mu yegg si 17 heures mooy 10 Bombardier ngo Aline Gueye ne nañ taxaw Bombardier ngo Bombardier ngo yëkkati na loxo bi Bombardier ngo la ilaha illallah Bombardier ngi noonu